télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér animal ngir a sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. mi nga mën a sa jaar jaar. Mm. nanga wane sa ci émission jaar jaar mi nga am ndam. Ladoum TV télé askan mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV. waaw mbokku téléspectateur Ladoum TV. ñoo ngi ci box 130 fii nga xamante ni si mooy cité Sonatel mu nekk premier édition Saldec mu nekk cinq associations yoo xam ne dañoo boole seen doole def ko mu doon benn ñu organiser une première édition tey ñu taxaw ci ak suñu benn grand ñu koy wax Abdou Fall bergerie Dingiraay ñu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur Ladoum TV. gannaaw boo nuyoo nag nga wax ñu foire bi sa impression ci foire bi. waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum élevage salaamaaleykum Sénégal waaw maa ngi lay ziar di kontaan ci yow di nuyu Alsane Rane di leen nuyu di ci ñoo gën a kontaan tubaar fakkal la ndax à chaque fois fu ñu la gis dig ñu woo jox ñu ay conseils teg ñu ci code kon kontaan nañu bu baax a baax a baax. tey nga def sélection ñëw ci foir bi naka nga jàngatee foire bi tey muy sa premier muy premier édition bi. vraiment kontaan naa ci parce que juróomi borom xam-xam yu booloo war a tëgg benn affaire loolu warut a mën a cinq bopp cinq borom xam-xam yu booloo bu ñu defee nii bu réussirul kon nañ ko bàyyi xam ni ton du dara du réussir mais macha allah réussir na wax dëgg yàlla parce que innovation def nañ ko bu wér a wér xar yi rafet na bon exposition bi baa na. am na niveau daal man noonu laa gis te bu ñëpp defee nii association yi di booloo nii foire yi dina mën a xaw a wàññeeku tuuti parce que foire yi bari na mais bu ñu ko defee nii di ko di ko di ko di booloo di ko def par cinq association foire dina mën a am espace gars yi daañu nam foire yi aussi niveau yi dina gën a kawe loolu laa gis ah loolu am na solo mbokk téléspectateur Ladoum TV bu ñëpp defee nii cinq association booloo seen seen doole ah réussite totale ndax lii réussite totale sélection bu mucc ayib tey nga génn indi benn sélection bu rafet tubaar fakkàlla ñëw pour taaral bés bi ci biir sélection bi gis nañ fi benn maal bu doy waar ak ñi mu àndal nga présenté ñu maal waaw maal bi euh, maal bu maal bu neex a présenté la parce que li ñuy wax juddu ji réew ci réew mi la juddoo juddu bu rafet la am parce que maal bi euh, ñu ngi koy wooyu loo gelewaar di sët ci Vietnam kenn ko ne xam ne Vietnam daj dëpp ka doom mosu ba boo Saalum benn baay yaay ji góor gi waaw Vietnam moo jur loo mii parce que Bogos doom Vietnam mooy papam waaw yaay ji tam gelewaar la xam ne boole gelewaar ak Vietnam ndax dañoo jël doomu gelewaar teg ko ci doomu Basir mu def maal jël maal bi toog ci doomu Zaladan mu jur yaayam yaay joo li jël teg ko ci Vietnam mu jur papaam papa papa ji tabaat yaayam fixé ko waaw fixé ko moo tax mu góor ñu tëggin wër bete bete algoor guddi get benn benn Birahim wax dëgg yàlla. ca ñulug wala mbokk téléspectateur Ladoum TV dañoo xëy dem marché ba ñu demee marché ndugg ndugg bi ñëw taal yekk mu ngi nii mu nekk Lo Guelewar tubaar fakala nekk na xar bu extraordinaire nekk na xar mu impressionnant tey kii fan nga yaakaar ne war a fa mën a yóbbu élevage tey ak production am. waaw moom dafa war a sant jàmm gi ko parce que xar yu rëy yi dañoo nekk en rupture. parce que gars yi dañoo tàmm dañoo nekkan ci liggéey ci njool sew gudd rek njool sew gudd njool sew gudd semaine bi commencé def ay 105 106 mais dañuy sew def benn buum mel ni ak buum maal manqué parce que dem nañu ba topp maturation yi xar yi sew gudd ba xari góor yëpp jeex parce que xar yi xar yi gars yi taxawal bii ñu gagné foire yi di lëng def ay lëngër 106 107 du ñu am TP du ñu mën a jur doom ju góor ju baax ba maal manqué du dëgg. nee na man damaa retourné man pour bëgg a changer càmm élevage càmm Sénégal boo demee indi Gelawaar Vietnam Basir Zalatan ca lépp ca ba loolu dafa war a changer càmm gi parce que dañoo commencé jël TP femelle yi te TP Vietnam ku ne xam na ko te sa tey maam xool ko ñu laay bi rek ak rëy bi waaw loolu la demee. ndax gis ñu benn doomu baayam bi nga xam ne mooy dawala gis nga li mu yore ci kees gis ngeen limu mu yor ci TP kon buñ ne loo mii. war naa mën a indi leneen doomam yi indi leneen kon war nañ koo gëm. waaw maa ngi nuyu El Hadj Cissé de passage sama xarit moom moo regretté Vietnam ci loo mu jur fa Guy Marius jur fa Dabala Dabala bu rëyul tooñ Guy Marius Sagna bu rëyul tooñ boo gos bu tooñ boo gos moo jur loo Dabala Vietnam moo jur Dabala léegi boo gos ak Dabala ñoo bokk benn baay Dabala papa la ci maal bi moom papam ñoo bokkee ñoo bokk benn bay waaw Vietnam kenn ku ne xam na ko wax dëgg yàlla waaw. macha allah loolu taw féex la. waaw ba tey ci biir sélection bi gisaat nañ fi benn grande femelle. waaw macha allah tête nue. waaw kooku mooy nee naa la war maam Adama Aïcha lañ ko tuddee yaay Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou bu yéeme sama benn xarit maa ngi nii de passage Papi Cissé moom ma ko jaay bote Mbour à l'époque sala soir seeb bële passé war def deux ans mu nekk mbote bu ndaw bokk fu wóor nag. waaw parce que neen xayluwaar bi doomu doomu Edouard la Edouard kenn ku ne xam na ko Edouard doomu Napoléon la Napoléon nag bu ñu ko waxee bu Aziz Diop bu Picasso taxul ñuy wax Napoléon bi dañoo jël bu sabal tegu ci fa Saalum mu jur préfet jun kenn bëggul jur Napoléon wax dëgg yàlla di seetu Saalum Saalum bu wóor bon nee naa luwaat bi aussi yaay ji doomu 77 la bu Sëriñ Jaxate 77 doomu Saltan am judd bu wér wax dëgg yàlla ma jëlee ko buuti ci liggéey wax dëgg ah, am na solo. macha allah mbokk téléspectateur Ladoum TV waaw ba tey ci biir sélection bi gisaat dañ fi beneen grande femelle def corne yu dijji waaw def weex tal kooku mooy tal. kooku du ay caaxaan kooku mooy Ami Thiam. sëtu Abdou Fall. Ami Thiam Omar ko jur. Omar Ngom yi lañ ko tuddee. Omar boobu doomu Coro la Coro Abdou Fall. Abdou Fall dëgg dëpp gi ñu coow diggante ak Ami Thiam ñaari xar fi jaar. bàyyam ak maamam. Omar ko jur Omar Coro Coro Abdou Fall. mais Ami am bi itam arrière param biram mooy maamam bu Moussa dama jël doom bi doo teg ko ci volcan bu bu Fallou bu Fadilou Keita ñoom non volcan bu daamloo médecin bu Fadilou mooy yaayam volcan boobu moo jur yaayu maami Ami Thiam feuille boobu laa jël yóbbu ko Galéa teg ko ci athlète papa yi madame Cissé bu Latir Cissé mu jur yaayam yaay ji man kër ga kii mooy Ami Thiam juddu bu wér la am. macha allah juddu gu rëy ndey baay macha kii nekk na femelle bu doy waar Ami Thiam waaye ba tey ci biir sélection bi gisaat nañ fi beneen femelle encore. waaw def collier bu xam ne rouge noir la. waaw kii mooy dabalam moom doomu loo mooy taam quoi moom loo jëkka wàcc ci kër gi am caam am mooy yaayam di añal bu yemee moom tamit ci loola juddoo juddoo ci am ci am rek jël may présenté waat parce que loo ko jur loo Vietnam la am ci am Abdou Fall ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn baay. lan nga ñu mën a wax ci mbote bu ñuul. bu ñuul benn benn nag soo gisee mu ñuul kukk nii daa seddu. parce que sa tur waa la ku jur waa Basir Saalum Saalum ku jur Vietnam Mostur mook Saalum ñu bokki benn bàyyi kon bode bi daa juddu mais roi Basir nag bul fàtte ni bas la ndax Basir joomu jibi la ak Jayna Basir la jël teg ko ci Flavia mu jur Dadaa jël Dadaa teg ci Saalum mu jur Fala mu jur roi Basir roi Basir benn Saalum Saalum la mooy maami añel bi macha allah di Vietnam Saalum roi Basir ah mbokku téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee box bi li fi nekk ay xaru qualité dëgg dëgg dëgg ay xaru yu pare dë dëggantaan bokk fu wóor a wóor a wóor grand nga fàttali ñu Bergerie fan la nekk ak seen numéro téléphone. wala moo ko fàttali xanaa dama leen njëkk a ñaanal yow Zil yaa grand fu ma fekk ngeen ma fa jox ma sama wàcc ba mat bëggal ma seen bopp vraiment fonk ma lool xam nga ba ma xam ko nag. grand quand ñu dem box ba ma jëlal la loolu dooy caaxaan te yombu leen nag yaa ma doon Ladoum TV c'est le meilleur moom la gars yi wër ku bëgg am visibilité wala bëgg a siiw demal Ladoum TV kon bu ngeen ma fonkee yow ba ci man ni ma grand kaa ñu jël la am na fu ngeen ma teg maa ngi leen di ñaanal télé bi yàlla gën a yaatu entreprise bi na ko àdduna bi yëpp dégg ngeen tedd ci ci barke parce que yow yaa nga yàgg ku xam raan xam na Souleymane te lu yàgg dëgg la ba ngeen may fekk sep ca Technopole du tey kon maa ngi yéen yàgg na ànd bi yàgg na am leen man leen lu may jàpp ma comme nijaay jàpp ma comme mag taxaw ma mais yàlla yàlla taxaw leen mais man maa ngi dëkk Thiaroye Gare Tali Karo sam-sam sama numéro 77 la 552 56 26 di kontaan lool ci seen chaîne bi jërëjëf ñaana gudd fan ak macha allah. passé.